sant la gërëm la euh, ci nangu bi nga xamante ne nangu nga ko wuyu ci suñu invitation bi lee jërëjëf euh, ñuy euh, nuyu askanu Sénégal di nuyu ñëpp ñu ñuy déglu di boole nuyu tamit suñu pensionnaires yi nekk Talibou Dabo ak seeni parents d'élèves di baalu ak tamit malade yi nga xam ne ñu ngi fréquenté Talibou Dabo ci jafe-jafe yi nga xam ne jàngonteel nan ko ci fan yi ñu nekk ak fan yee ñu weesu. Euh, dañuy tàmbalee émission yi ci li nga xamante ne moom mooy jafe-jafe bi centre euh, Talibou Dabo di jànkonteel mu mel ni rek euh, bokk na ci cinq points mais dañuy tàmbaleek rek ci li nga xamante ne moom mooy bu ñu waxee jafe bu soxal centre Talibou Dabo lan nga ñu ci mën a wax ngir démarrer. et docteur Diouf. waaw boo seetee centre bu Dabo euh, il faut ñu dellu ci historique bi. Mhm. ñu ngi ko sanc euh, ci atum 1981. Euh, mu doon xalaatu benn médecin bu mag yàlla na suuf sedd ko am. mu nekkoon orthopédiste nekk professeur Idrissa Pouye moom lañ tuddee actuel hôpital CTO ak CTO donc moom ci mbëbëtam Euh, dafa xalaatoon ne war nañ mun créer benn structure boo xamante ne xale yi nga xam ne polio la ñu am dinañ mun euh, faju jàngaale tamit parce que bu njëkkoon euh, li ñuy woowee stigmatisation dafa amoon ci feebar boobu noonu te moom objectif am moo woon xale yi nga xam dañoo woon polio nga am handicap moteur pur et dur lañ am mën a jàng école mën a tekki ñuy sant nag liggéeyam ci jamonoom nag. Talibou Dabo ñu ngi ko rattaché woon directement présidence parce que mu nekkoon xalaat bi nga xam ne professeur Pouye mu ngi ko amoon te amoon ay relation yu particulière ak dem si yàlla premier président professeur euh, du président Léopold Sédar Senghor euh, moom nag ci mandatam jotul u centre Talibou Dabo mais xalaatam comme moom du bëggoon ay fu jàng moom moo ko njëkkoon xalaat ak professeur Pouye Euh, yàlla def nag ci nguur Abdou Diouf si nañ sànc santali bu daabo boobu nag santal bu daabo ñu ngi ko logé woon mu nekk dama maw présidence mm-hmm. euh, gestion bi nekkoon euh, une gestion boo xamante ne bu mucc ayib la xale yi fi ne woon nag bénéficié woon ay yenn largesse moom la ñu woy une discrimination positive comme ça ñu mën a tekki ëllëg buñ nee nag bi ci biir Euh, ñu gis ne agent yu nekk ci biir bi Blaab dañoo am ay problème euh, par rapport ak seen yenn type de contrat ñenn ñi ay athlétique lañu woon mais amoon na ay prestataires yu bëri ñu jàpp nag ne euh, comme point saillant wu centre bi nga xam ne bu jeg bi c'est une direction médicale ñu ngi ko ñu ngi amoon ay ay velléités yoo xamante ne c'est purement médical ñu jël sant bi personnel en tout cas bi nga xam ne mooy personnel de soutien bi ak personnel médico-technique bi ñu euh, yóbbu leen euh, ci ministère de la santé de l'action sociale mm-hmm. mais nag érigé wuñ ko en établissement public de santé non hospitalier mm-hmm. mu nekk une euh, direction qui est directement rattachée à la direction générale des établissements de santé boobu ba léegi nag ñu gis ne am na ay avancement mais am na ay gàllankoor yu bëri surtout côté personnel bi euh, aduna nag di dox ba poliomyélite daanaka ak campagne de vaccination yi ñu dem ba éradiquer ko parce que poliomyélite am na yenn dëkk yu mu am comme ay Inde ak yooyu mais Sénégal am na quelques poussées yoo xamante ne dañ koy eh, daan rapidement par les campagnes de de vaccination mm-hmm. daanaka depuis deux 2004 quelques cas rares de polio mooy am ñu seetlu ne xale yi nga xam ne ñoom ñooy am ay problématique euh, handicap dañ ciy boole am ay problématique wu xel ay problématique wu jàng par rapport ak Euh, curricula classique yi ñu gis ne ñu ci ëpp dañu am problème ay problème neurologie également ñenn ñi euh, dañuy sonn ci ci ci ci ci accouchement yi bi ñuy juddu loolu la ñu wooyee paralysie cérébrale ak ñenn ñi nga xam dañu am ay problème yoo xamante ne seen système nerveux périphérique wala seen muscle yi ñoom ñooy bañ ñu seetlu daal ne fu mu ne nii polio newatu fi lu fi ëpp li ci ëpp ci affection yi ay feebaru neuropédiatrie la mm-hmm. teewul nag am nañ toujours ay spécialistes en personnes physiques yoo xamante donte ay mag lañ mais ñu ngi ñuy jàppale am na yeneen spécialité yoo xamante ne dañuy ñëw di intervenir ci terab dab ci pédiatrie parce que configuration épidémiologique moom moo changé dañoo jóge ci configuration boo xamante ne benn feebar la woon léegi ñu am ay feebar yu bëri yu fiy dajaloo looloo ma indi man mi terab indi fi ñeneen ak ñeneen euh, léegi nag il faut que Talibou Dabo ak configuration boobu mu mettre à jour en tout cas euh, par rapport ak offre de service bi pour jël en charge question wu faj bi question wu tamit jàng xale yi parce que xale yu bëri mënuñ toog jàng comme classe yu classique il faut ñu dugal leen ay structure yoo xam ne il faut éducation bi gën a inclusif mooy éducation spécialisée il faut ñu am tamit yeneen spécialité ay orthophoniste ay psychomotricien mm-hmm. yeneen xeetu spécialité yoo xamante ne dañuy Euh, ànd ak kinésithérapeute yeeg ak appareillage bi pour gën a mën jël en charge problème yi euh, boo gisee nag yëf yi dafa xaw a gën a compliqué donc Talibou Dabo offre de service bi dafa gën a diversifié euh, te ba léegi en tout cas li ko mbubb ba léegi nekkul ak norme yi mooy Talibou amul statut directeur bu ñu fi nommé ku ko neex dugal ku ko neexit génne mm-hmm. mbirum koppari gestion bi kenn amu ci benn visibilité xamuñ liy dugg xamuñ luy génn mm-hmm. donc ñu jàpp ne euh, surtout bu toll noonu xam ne ñi fiy liggéey léegi bëri na il faut au moins ñu mettre en place benn commité de gestion loolu mooy moyen bu njëkk mm-hmm. bi nga xam ne ñetti at ci ginnaaw dañ ko waxoon ñu ànd seeg ancien ministre Abdoulaye Diouf Sarr mu àndoon ci ak ñun mm-hmm. yebaloon ki fi nekk comme directeur pour mu installer comité de gestion bi yàlla def mu nekk fi directeur dañu seet ne bu mu fi toogee ba léegi comité boobu mosul fonctionner mm-hmm. te lu toll ci at a ngi nii ñu ngi ciy waxaat boobu ba léegi euh, en tout cas autorités yi ñëwuñ installer comité de bi mm-hmm. te looloo andi coow li fi am yëpp bu ñu commencé wax wax comité ci lañ commencé génne ay contrat wu ay prestataire ne ñi kat seen contrat jeex na ñi nga xam ne dañoo nekk ci benn syndicat wala ñi nga xam ne dañu am seen fulla xam seen droit di revendiquer yenn yi ñoom ñëpp dañ leen di intimider ñenn ñu naa seen contrat arrêté na mm-hmm. ñenn ñi dañ leen woon ne da ngay syndiqué wala doo syndiqué mm-hmm. de telle sorte que daal ambiance liggéey bi vraiment newatu fi mm-hmm. euh, rax ci dolli nag ñu dem ba juróom fan ci ginnaaw ñu àndi fi police police nekk fi yore ab listam waxuma la sa prestateur mais chirurgien dentiste bi sax ñëw na di xëy si ñu ne ko doo dugg keroog euh, ki nga xam ne moom mooy chef de service garant des projets de vie nekk éducateur spécial nekk cadre de gestion nekk conseiller technique en même temps ñëw nit dugg ñu ne ko doo dugg te yàlla def na moom euh, mu nekk euh, une vitrine pour centre bi daa bu nekk une personne en situation de handicap mm-hmm. jàng-jàng yu wóor mm-hmm. génn dëkk bi dem ba États-Unis jàng am fa ay lijaasi bëgg a dellu si pour liggéey pour communauté am ñu affecté ko fii nii mu ñuy jàppale ci liggéey yu bëri moom mm-hmm. ner lu ñu metti nag euh, ñëw na fii euh, dugg taxim parce que dimbalewuñ ko sax pour transport am yegg si fi policier yi ne ko doo dugg doo dugg ci centre bi te moom fauteuil roulant bu koy jël si pour mu dugg bureau mi ngi nekk ci biir sant bi. Mm-hmm. buñ leen ñaanee pour ñu jël si fauteuil bi sax dañu bañ. ci agent yi kenn nga xam ne moom permettre ko mu dugg moo mujj jël fauteuil bi delloo si ko ñu génn ko mu doon lu ñaaw. ma ne image boobu rafetul rafetul pour centre bi parce que ñun dañoo gëm ne euh, dañ fi nekk pour personne en situation handicap bu ci amee kenn koo xamante ne rëcc na. surtout ci jamonoom ba mun am yenn niveau d'expertise yi dañ ko war a ormal def ko vitrine jàppale ko ci liggéeyam waaw donc yooyu bokk na yu tax nag euh, vraiment lii fi précipité wu ba tey jii nii nit ñi rassemblé wu collectif agent yi nga xam ne en tout cas ñoom yàgg nañ fi. Mm-hmm. nekk personnel de soutien nekk personnel médico-technique def ce point de presse mm-hmm. waaw. Euh, docteur Diouf damay dellu si rek ci li nga xamante ne moom mooy comité de gestion bi wax nga ko taxawal nañ ko ñetti at mais mu mel ni boobu ba léegi la jafe-jafe yi gën a tar fii ci centre bu Talibou Dabo tey bu ñuy wax comité de gestion xam naa c'est pour mu gëstu lépp lu jëm ci wàllum gestion interne bi soxal Talibou Dabo tey fan nga jàpp. ne le comité de gestion bi sooxee ba munul def le travail comme il se doit. non comité de gestion ci moom dafa amul. c'est-à-dire comité amul. fii direction moo fi am man miin Euh, juste un cadre de la structure. Mm-hmm. mais am na yu bëri yoo xam ne duñ ma ko sax yëgal. Mm-hmm. mais yooyu c'est pas important euh, comité si boom dafa amul comité dafa nekk lu ñu demander. devant le désert administratif. parce que dañoo gisul benn procédure boo xamante ne xur na suñu bët doy nañu ci nit ñi ni ñuy gere koppar yu dugg ak yi génne ci nit ñi ni ñuy gere tamit personnel bi. Mm-hmm. moo tax ñu demande woon il trois ans. à ce que ñu mettre en place un comité de gestion à défaut d'avoir un statut xam nga tey boo duggee hôpital Fann da nga xam fi ngay teg sa tànk en tant que médecin mm-hmm. fii boo ñuy santé bu daaba li nga xam daal mooy nit ñëw na nga jéem ci li nga mën ci kàttan yàlla nga faj ci li nga mën mais sinon doo xam exactement ban rapport ngay am ak yenn hiérarchie mm-hmm. te ban rapport ngay am par rapport ak administration beeg gestion bi mu nga exprimer besoin am nañ def juróom benn weer duñ la wax nii la wala nee la mm-hmm. am na loo xam ne dañuy gis ni mi ngi dugg fii te ñu xam nu muy demee te euh, buñu fàtte ne ñun luñ fi bàyyi mooy xale yi fi nekk donc euh, il faut que à défaut ñu teg fi un statut spécial parce que surtout hybride la am na école bu ñu ko fàtte au moins ñu am euh, benn structure consensuelle boo xamante ne nit ñi nañ fa mën daje ba pare mu am euh, loo xamante dina tax euh, gestion bi gën a leer ba pare personnel bi bañ a nekk à la merci de la direction tout simplement. Euh, sànq yaa ngi ko doon wax gestion bi nga xamante moom moo soxal personnel bi ñu bëggoon nga nga dellu si ci. waaw mais euh, en fait personnel bi euh, tey jii nii am na ay agent yoo xamante ne fonction publique la ñu rattaché mm-hmm. am na ñoo xam ne contractuel ministère lañu boo demee ci structure de santé bi loolu nga koy fekk am na ñoo xam ne ay prestataire lañu mm-hmm. mais particularité bu tali bu daaw mm-hmm. mooy fii prestataire yi dafay yàgg dañ fay yàgg euh, dañuy toog lu mot fukki at doo gis benn prestataire boo xamante ne changé nañu situation am da ngay gis ku def fi ñaar fukki at da ngay gis ku am ay diplôme liggéey fii ba atu retraite jot te prestataire lay mës doon amul versement IPRES amul dara mm-hmm. ba retraite fekk ko si mu bàyyi te mu nekk ni ko am ay ay ay diplôme mm-hmm. noonu lañ koy libéré mm-hmm. donc ñu ne il faut que en tout cas au niveau la direction ñu wut ay pexe pour que ñi nga xam ne ay prestataire lañu ñaan nañu ministère jël leen ñi fonction publique mën jël mu mën leen a jël parce que nekkul ñëpp lañ mën jël ñi nga xam nag ne mënuñ leen a jël parce que peut-être seen liggéey nekkul ci nomenclature euh, direction ressources humaines yi ñun suñu bopp ñu xam ne ñii ñu am solo lañ ci liggéey bi ñu mën leen a jël jox leen ay CDI verser leen IPRES jox leen un minimum de sécurité parce que euh, déjà feebar bu dalee sa kaw rek euh, am na yenn feebar am si dem laa di appauvrissante fa ngay jaar daanaka xalaat beeg ñàkk koppar bu faju moo lay gën a mën faagal sàkk feebar bi mhm. donc ñu bugg ñu sécuriser un temps soit peur le personnel o mhm. contraire nag lu ñu gis moom mooy direction mu ñëwee ba léegi maintenant nit ki boo gisee sax mu nekk situation boo xamante ne vraiment c'est illégal euh, wala mu nekk situation boo xamante ne gënaluñu nga toog di ko seetaan sax expectative moo gën nga ñëw di yokk coonam mhm. mooy nga ñëw bindal ko benn contrat boo xamante yow amoo ci benn droit en tant que directeur mhm. parce que fii amul statut nga bind contrat wu trois mois jox ko ne ko saa ya ma neexee mun naa la dàq bu contrat bi jeexee nga bindalaat ko ñetti weeru ne di jéem a ndaxante ak ay direction des trucs mais xam nga ne nit ku toog ñaar fukki at di liggéey contrat tacite am na fa bu fekkee jàng tuuti donc toog di jéem a formaliser affaire yoo xamante ne vraiment c'est dans l'informel wala nit ki di syndiqué nga ne ko yow tu es en fin de contrat bay tabaski ne ko doo duggati ci biir centre bi mm-hmm. yooyu abus de pouvoir la ndax mm-hmm. ci dool nga woo police mm-hmm. am na fi euh, lu fi xewoon il y d mois mu am ñaar agent yoo xam dañu xëy fajar di ñëw levée du couleur ñu ne leen du ngeen dugg kenn ki ñu ne ko dañ ko jox notification comme quoi il est mis à la disposition du ministère te ba tey ba sànq ministère waxagu ci mm-hmm. keneen ki ñu ne ko dañ ko mise à pied te ajjuma lañ defoon réunion syndicale mu xëy leen ñu ne ko mise à pied mu ñëwee muy dugg agent de sécurité ne ko doo dugg directeur bi ci boppam moom dem na au charbon ba ci balu fetal tàkk ci donc euh, fii ci biir santal bu daaw donc euh, huissier constaté na ko plainte am na boobu ba léegi euh, yëf yi daal dafa mel ni dañ ko téye daal tënk ko foofu naan enquête bi jeex nag jeexagul mm-hmm. te ñu war a def enquête bi ñoom saa ñu woowee ñu ñëw fii gàddu liste naan kii dugg kii du dugg mm-hmm. donc ñu bëggatuñu situation boobu yu mel nii di fi amati parce que fii structure la boo xamante ñi fi nekk yoruñ seen tànk ñi fi fréquenté lu ci ëpp ay métit yu métti métti métti la ñuy jànkonteel parce que feebar day làqu ci suuf da gis nit ki ñëw di sooxaale rek nga naan ay ay genou la mm-hmm. fekk yeneen mi ngi ci biir malade yi ay malade yu diis la mm-hmm. donc euh, gënaluñu police di ñëw fii nii di intimider agent yi di créer benn climat boo xamante mosu fi am parce que fii délinquant amu fi mm-hmm. Euh, sàcc neew fii police am na leen lu war mun liggéey te xamuñu ban rapport direction bi am ak commissariat yi ñu jàpp ne abus de pouvoir rek te dinañ ko topp bu mu mat waaw mu yem nag neex. Euh, justement par rapport à wax nga ko ci sa njëlbéenu wax ci démb centre Talibou Dabo dañ ko rattaché woon euh, ci présidence mujj bi jamono di dox ñu rattaché ko ci lépp jëm euh, de la santé ak action li koy gën la ko taxoon jóg jamono doy dox ñu découvrir yeneen jàngoro tey jii boo doon situer responsabilité par rapport ak li nga fi a ministère de la santé ak action action sociale euh, war nañu am écho bi wala ils sont au courant ndax boobu léegi vraiment ñoom dépêché nañ fi quelqu'un boo xamante ne dina mën a ñëw def euh, inspection bi jox la parole aux personnes concernées ñu mën a rétablir la vérité ba jàmm dellu si waat fii ci Saliou Darou. Euh, autorité ministérielle yi ñu leen di gërëm jaar nañ fi. bu mm-hmm. ci mel ni directeur des ressources jaar na fi jaaraat fi. Mm-hmm. ak ñeneen voie de moom. Euh, am na euh, am nañ tamit lu ñu jot waxtaan ak ñoom waaw muy directrice établissement public de santé DGS muy euh, directrice ressources humaines jaar nañ fa plusieurs fois moom it ñëw na ba fii mm-hmm. lu yàggul sax directeur de cabinet ñëw na fi Euh, mais ba léegi daal euh, daanaka ñun ñu ngi leen diglu parce que ñuy kilifa lañu. Mm-hmm. Euh, mënuñu xam exactement tamit lan la ñuy wax ak directeur bi nekk fii nii. Mm-hmm. ñun toujours est que lépp lu mun mënti am ñun dañ koy rendre compte. au niveau la direction moom lépp lu ñuy bind comme préavis yëpp moom mu ngi jot Euh, mosuñu woo nag pour ñu ñëw waxtaan si waaw ça fait des des des lu mat ñetti semaine nit ñaa ngi xëy di liggéey seg brassard rouge mm-hmm. man dégg ma fu mu wootee ne nañ ñëw waxtaan ci lii ak lii ak mm-hmm. du dul police daal laa fi gis mm-hmm. tey daal laa dégg bi ñu xam ne xëy nañu gisuñu fi police laa dégg ne woote na pour jéem a euh, wut benn terrain de benn issue waxtaan ak euh, agent yi mais bon ba léegi fu mu daal ñun ñi ngi xaar autorité yi ñoom euh, ñu wax ñu fu ñu toll ak direction Talibou Dabo mm-hmm. mais en tout cas euh, ibil ñu seen bunt du mën ñëwuñu fi parce que ñëw nañ fi mm-hmm. ñëwaat nañ fi euh, maintenant nag li nga xam ne nag ci kaw la mënuñ ci sori mm-hmm. parce que loolu c'est du ressort de la tutelle ñun suñu liggéey ñu ngi koy def lu ñu war a def ñu ngi koy def te am na condition yoo xam te ne tant ñu ngi fi Ah, liggéey bi day sooxaale moom du lay xam waaw. Euh, mu mel ni gestion interne bu soxal Talibou Dabo euh, c'est pas trop ça particulièrement bu ma la comprendre bu baax euh, seen directeur mu ngi fii boobu léegi yéen ngi def di xëy comme il se takk port de brassard rouge mais ba léegi ñëwul si le personnel adéquat. non amul benn kii foofu fu mu ne nii c'est on sent un management par la terreur. Mhm. looloo fi looloo fi am quoi. quoi parce que fu ñu dem ba ay balu fetal tàkk ak yooyu nga xam ne vraiment c'est un management par en terreur en quarante et un ans Santale daa mosul xam lu mel nii te nit ñi dañu ànd jàppale directeur bi ah. Mm-hmm. def na fi pratiquement ñetti at yoo xamante ne kenn déggul nit ñi. Mm-hmm. c'est pas problème yi amu fi mais nit ñi dañu takku liggéey mais am na loo xam ne dañu wax ëpp tour. Mm-hmm. am na fooy toll nag euh, mais nekkatul ay problème syndicat problème de collectif la fii ñi fi nekk. man je suis neurologue maa ngi def neurologie pédiatrie mm-hmm. am na fi pédiatre boo xam ne moomu jiitu ci université am na fi beneen médecin généraliste mm-hmm. am na fi ancien directeur central daal ñaar ancien directeur yëpp ay spécialistes en rééducation lañu mm-hmm. at yi mais ñu ngi kon na ñëw jàppale liggéey bi am na fi chirurgien dentiste am na fi laboratoire technicien labo bi moom moo ñu defal EG moom mi ngi ni ñu bloqué ci bunt bi. Mhm. semaine ngi nii mënul dugg ki ko bloqué xamul sax kii lu tax mu bloqué mhm. on comprend pas. ñu ne ko doo dugg infirmier major mi ngi fii am na fii euh, pratiquement ñoo def nañ fi pratiquement vingt cinq ans dans le secteur médical. Mhm. am na fii un service de kinésithérapie ñi fi nekk ils sont à la retraite waaye dañu ñëw kon ne jàpp ci liggéey bi. wax naa kër ministère amuñu benn kiné bu jeune boo mhm. xamante ne dañ ko affecté au titre de la fonction publique ba léegi gëj nañ ko am mais ñi fi nekk ay mag lañu ñu ngi kon ne ñëw am nañ service d'appareillage ki fa nekk jiite ko euh, du xale mag la moom tamit à la retraite mhm. donc yooyu yëpp ay problèmes yi yoo xamante ne dañ koy soumettre au niveau de la tutelle mhm. pour que ñu am un projet de formation pour que ñu mën a remplacer la ressource. Mm-hmm. parce que am na fu ñuy toll mais les gens ne sont pas éternels ñun ñu fi nekk sax on est appelé à partir. Mm-hmm. nekku la ngay nekk fenn rek diju fa. Mm-hmm. ba yenn at yi fekk la fa mhm. il faut que la tutelle songe à renouveler en tout cas la ressource humaine mhm. euh, bu weesoo problème bu ngeen di sàkku ñu taxawal comité de gestion ak euh, bi ban jafe-jafe euh, la personnel bi nekk centre personnel bi déjà seen contrat yi c'est des contrats mhm. loolu boo fi nekk ñoom dëkk fekk ñoom ngay xam ne ñi vraiment ci ay jafe-jafe la ñu dëkk Euh, contrat yi waxuma la sax fay bi mais contrat yi du ay con da ngay dem ci yeneen structure sax di nga gis ay contrat de prestation mais bii niñ koy libilee ak niñ koy bindee dafa jéggi dayoo. Mm-hmm. man mosuma gis contrat de prestation de trois mois te fii lañ koy def. te fekk agent bu def vingt ans nga ñëw yeewu nga ne ko léegi dañ lay defal contrat de prestation de trois mois mhm. mun nga jékki-jékki puis la demande renouvellement RH bi la message ne la non ce renouvellement duñ ko accepter mhm. sans aucune euh, euh, condition amul dara da ngay jóg ñu ne la jël say bagages nga dem si yoon mhm. te ñi nga xam ne nag ñoom lañ defal contrat yi nga xam ne ñoo gën lucratif mais il faut le dire ay mbokk directeur bi lañu te moom nu muy dugalee fii du laaj kenn ku mu neex dugal day xëy rek dugal nga gis ay nit ñu bees même bloc médical da ngay yeew gis nit ku ñëw nuyu la. le mhm. docteur ça fekk yow yóbboo ci dara. Mhm. et c' est comme ça que ça se lépp ci mhm. moom la mais moom na xoolaat tamit ay collaborateurs am. xool ñooñu nan la ñuy doxalee ak moom. sinon bu fekkee ne euh, am na ay jafe-jafe à niveau moom mu xool yan solution la ci apporté parce que personnel bi. contrat yi baaxul ñi nga xam ne ñoo gën a baax la contrat seen njëriñ biru fi te ñi ngi fi di feeku mooy ñi ngi gis ñuy dugg di génn police téewu leen mm-hmm. ñoom buñ fi amoon njëriñ kon nañ fi dugal dara mm-hmm. ñi di dugg di génn fii seen njëriñ biru fi mm-hmm. ñi fi am njëriñ ñi ngi ci biti dugguñu donc yooyu c' est des problèmes yoo ne ministère da ko war a régler mm-hmm. parce que mënuñ ko régler ak directeur bi koo xam ne la bëgg ko xoqatal je ne vois pas par quel moyen ngay mun inverser la tendance il faut moom un arbitrage de la tutelle mm-hmm. parce que moom dafa ne kenn du ko tere def lu muy def mm-hmm. waaw te mi ngi ci ba woon police teg fi ñun tamit euh, fu ñu taxaw la ñu taxaw ba léegi kenn ñu tere ñu nekk suñ jàmm parce que euh, moom dañ ko nominé mu ñëw fi ki ko nominé woon sax yàlla def na newatul au à la tête ministère mm-hmm. donc ñu xam ne personne n'est éternel quelque part mm-hmm. da ngay ñëw béy sa waa rek ab dem si mm-hmm. mu mel ni en plus de gestion force bi eh, à l'interne transparence bi ça laisse à désirer. non mais problème de transparence xam nga euh, mooy gestion opaque. xam nga nit ki mënoo toog nga ne kii dafa luumal wala dafa def lii mais y a des procédures yoo xamante ne boo ko amulee gestion bi dafay opaque waaw yëf du leer boo bëggee nag yi fi leer da ngay boole ñi nga xam ne da ngeen ko sëkk waaw mm-hmm. boo leen boolee nag yi fi leer waaw kenn lu ci teg baat mais waxuñ la lii moo fi am wala lii dugg na fii wala génn hmm. loolu euh, disons c'est discuter du sexe des anges kenn wax la lii la wala lee hmm. mais dañoo bëgg yëf yi leer hmm. loolu la ñu soxla waaw euh, sànq dégg naa la ngay wax ci lépp lu jëm ci wàllum kinésithérapeute euh, centre Talibou Dabo nekk xam naa bëri fi lu ni mel mu nekk centre boo xamante ne dafay rééduquer ñeen ñu am yenn handicap mais bu ñu demee ba centre bi ak dimension ak gëdd bu mu mel euh, ñuy wax waxu kinésithérapeute foofu aussi ndax jàppaloo ne suñu autorité yi euh, des nañu jël euh, le le problème à ci gàttal bu may ñëw fii nii man na fukki at ci ginnaaw boobu je fréquente le centre nekk mu moon sax médecin chef affecté wuñu moon au titre de la fonction publique dama ñëw def ay vacation fii ba mu fii ñëw douze kinésithérapeutes yu mat sëkk laa fekk mm-hmm. ak seen diplôme actuellement amul benn kiné boo xam ne dafa rattaché ministère wala fonction publique fu mu ne nii kiné yi fi des mm-hmm. ay ancien kiné la yoo xamante ne dañoo Euh, tout simplement euh, dañuy jàppale nit ñi toog fi loolu lañ ko jàppale. Mm-hmm. parce que ñoom ñëpp dem nañu retraite te xam naa ne euh, buñ deful nànk léegi ñu bàyyi. Mm-hmm. waaw nañ fi indi ah, il faut nee nañ nag formation moo sooxaale woon. waaye bu ñu demee ministère parce que ñun du ñu jékki-jékki rek dem <laughs> bi ñu ki ñuy jiital mooy suñu kilifa moom nee nañu moom demandé na woon na ASC ñu affecté ko ay kiné buñ fa demee nag euh, ki nekk RH moom nee na gisul benn demande bu jóge ci tel daa bu ñu ne ko loolu yëpp garaawul l'essentiel mooy aujourd'hui la demande elle est mm-hmm. mooy laaj nañ ko te wax nañ la situation bu fi nekk mm-hmm. parce que kiné buy def prestation mënoo ñëw jox ko ay xale pour mu def ko gratuitement mm-hmm. dina xaw a difficile kenn xamul euh, yan rapport lañu am ak direction bi loolu dafay sooxaale prise en charge xale yi nga xam ne nag dañ fi nekk du jàng ñu yor leen mm-hmm. donc ñooñ pour ñu bénéficier seen kiné problème la mm-hmm. parce que boo amul kiné affilié au titre affecté au la fonction publique wala ay kiné yoo xam te ministère moo leen jël nga jël ay prestataire doo xamban ban base lañ signé un contrat nan la ñuy defalee kiné mm-hmm. ay xale yoo xam ne daanaka duñu fay ou bien y a un tiers payant wala ñu naan wutal ay partenaire pour feek dugg na fii génn fii ministère nañu envoyé ay kiné parce que centre bi c'est un centre de rééducation mm-hmm. waaw mm-hmm. justement ndax loolu du xaw a gàllankoor seen liggéey wala euh, gënu yokk xale yi douleur bi parce que euh, li nga wax nii koo xamante ne war nga traitement euh, personnel bi nekk fi loolu xale yi waxuma la sax gàllankoor mais kooku évidence mm-hmm. parce que kii dafa nekk lu lu nekk au cœur en tout cas des projets thérapeutiques. fii nii daf ci daf ci bokk ci lu bëri waaw léegi buñ demee ba sant bi ñuy sooxaale am ay kiné yoo xamante ne ay prestataire lañu donte ñooñ nekkul nekkuñ même situation que mm-hmm. prestataire yi mm-hmm. ñoom seen choix la ñu ñëw di jàppale centre bi liggéey nañ li ñu war a liggéey pour état bi dañoo continuer ak un esprit républicain pour jàppale état bi mais mun mënuñu jàppale état bi ba wax seen bopp. Mhm. parce que kenn xamul ban type de contrat lañ si mhm. ak direction bi. Mhm. ñun ñu am fi ay pensionnaires une soixantaine diggante CI ba CM2. boo duggee jardin d'enfants ñi fa nekk ay xale yu tuuti lañu ñoo ñoo gën a soxla kiné. boo demee ñi gën a mag seen jax yi day gën a dëgër kiné bi day xaw a wàññeeku. mais ñi gën a tuuti lañ gën a soxla. mais daanaka pour ñu bénéficier seen soins yi problème la. parce que amul kiné yu doy. waaw euh, euh, taxaw ndax capacité d'accueil euh, mën na maîtriser ñi nga xamante ne ñoom ñooy am yenn jafe-jafe. non centre Talibou Dabo centre référence la war a nekk dans sous-région. Mhm. loolu mooy objectif am. Euh, capacité d'accueil bi euh, ba léegi épuisé wuñ ko. par rapport aux pensionnaires parce que boo seetloo fii dafa am benn filtre c'est comme un entonnoir da ngay ñëw sa doom laaj nga ne da nga bëgg mu jàng école mais ñun dañ koy xool saytu ko mu def ay test ñu xool ndax kii war na mun jàng ci classe yi wala dañ koy wutal feneen fu mu dem mm-hmm. donc daanaka boo ñu seetloo wu baax lépp luy ñëw si ñun pour désir de scolarisation yi daanaka boo jëlee fukk ñaar ñoo fi des mm-hmm. yeneen juróom-ñett yëpp daanaka mënuñ jàng ci classe yi comme école ordinaire yi parce que dañuy am ay jafe-jafe ci jàng bi am ñoo xam mënuñu bind am ñoo mënuñu wax am ñoo xamante ne dañuy yéex comprendre bu baax a baax a baax yooyu am na ñoo xamante ne seen représentation schéma environnement bi dafay changé parce que dañu am ay problème seen biir yuur yi mhm. donc ñooñ ñëpp dañu soxla yenn adaptation pédagogique yi ak yenn xeetu tàggat yi pour ñu mën leen socialiser am na ñeen ñoo xam dañ envoyé yeneen structure yi mi xale yi mi am na tamay ñun daal on sert un peu de garderie am na ñuy dem tamit CFD yi mais ne CFD yi wax déficience intellectuelle mais am yenn xale yoo xam ne bu ñu amee yenn handicap yi foofu configuration environnement bi ku nekk si fauteuil roulant sax mënu fa toog mm-hmm. am ñoo xamante ne mënuñu téye seeni besoin mm-hmm. yooyu yëpp c'est des problème ñuy jànkonteel mm-hmm. xale bi ngay dugal ci kaar bi kaar bi na a jaar géej waaye ñibbi bala mooy yegg boo deful nag xale dina crise ci oto bi wala mu def ay besoin am sur place wala chauffeur bi wàcc ñaan fu mu ko dugal pour mu def ay besoin am mm-hmm. te chauffeur boobu noonu contrat de prestataire la am mm-hmm. boo xëyee suba daax ko donc yooyu yëpp c'est des problème yoo xamante ne euh, dañ ko war a saytuwaat en profondeur ak tutelle bi pour ñu xam exactement ñi fiy liggéey lan mooy seen njëriñ léegi boo xoolee bu ñu defee filtre bi xale yu bëri ñu leen mën dugal ci classe yi classe yi li ci war a dugg directeur école bi la ñuy toogal en comité ñu xool ñi war a mun dugg mënañ dem sax bu ci digg année bi parce que mun nañ mettre quelqu'un en observation ñu dem ba ci biir ñu xam ne ñun suñu pronostic baaxul mm-hmm. parce que kii nii buñ ko mettre en situation dafay am ay jafe-jafe ñoom it ñu ngi def seen wàll lu ñu mën mm-hmm. pour jéemut ay adaptation mais bu ñu mënul tamit dañu koy delloo mm-hmm. ci loolu nag la ñu xalaat nan la ñuy créer benn unité médico-socio-éducative spécialisée mhm. pour ñi nga xam ne dañoo am polyhandicap mooy ñi nga xam ne dañoo am déficience intellectuelle sévère mhm. ak ay handicap moteur en autres handicap ci loolu ñu am partenaire ñu jàppale muy direction la coopération internationale monégasque ñu am partenaire bu nekk lecole des travailleurs sociaux de Nice ñu jàppale ñu pour ñu mun former éducateur spécialiste pour ñu former auxiliaire de vie scolaire Euh, même auxiliaire à la vie sociale parce que ñoom il faut ñu former leen bu ñu xam nan la ñuy gérer wee xale yi ñu former tamit yeneen spécialité paramédicale mooy ay orthophonistes yi nga xam ne seen liggéey dafa am njëriñ pour xale bi xelam mën a ibbeeku ñu former tamit ay psychomotricien euh, loolu nag ñu tàmbali ko euh, di ci xalaat bind projet bi ba yàlla def projet bi ñu tànn ko. Mhm. au niveau de ko ñu war ko financer sur trois ans am possibilité renouvellement financement yi ba neuf ans. Mhm. première tranche financement lañ jot. Mhm. ñu am luñ ci tàmbali. Euh, ba jël fukki xale. créer une unité. phase embryonnaire dugal leen fi ak chef de service garant de projet de vie mu nekk la psychopédagogue ñoom ñu jël commencé liggéey bu ñu tàmbali nar def ay travaux d'extension sous réserve que ñu mun def appel de fonds ci kaw da ngay def audi financier ci kaw da ngay def rapport intermédiaire c'est-à-dire lañ la jox nga wax ko dugal toog nañ lu mot at ak genn wàll ñuy topp ci loolu bu fu mu ne nii euh, projet bi daanaka mi ngi soox mm. euh, direction coopération internationale monégasque fu mu na nii tegg na ci tànkam ñuy xaar nag audit nga xam ne ministère moo ko war a def euh, tant que loolu amul projet bi daal fu mu ne nii daal daanaka bailleur bi nga xam ne mi ngi si doon jàpp moom tegg na ci tànkam teewul nag ak les moyens de bord ñu ngi continuer liggéey ci unité bi. Mhm. ak agent yi fi nekk. parents d'élèves ñu ngi continuer collaborer ak ñoom am nañu rapport de fin d'année bu ñu def. Mhm. pour euh, la première phase embryonnaire. Mm on espère que nañ trouver une issue. pour euh, que projet mën a continuer mhm. ñu def extension parce que moom laa la wax ñii di ñëw fii léegi di laajte pour jàng boo jëlee fukk yi ñaari ñooy mun jàng ci classe yi juróom-ñett yëpp il faut ñu wutal leen yeneen xeetu Euh, forme de socialisation mhm. pour ñu mën leen tàggat même ay mbirum faj bi dafay laaj yeneen spécialité yoo xam te dañ ciy dugg mhm. te projet boobu nag lañ la yaakaaroon mu law pour que Talibou Dabo nag nekk une structure de référence pour une prise en charge beaucoup plus globale mun jël lépp bépp benn bépp laago bu ñëw mu mun ko jël en charge waaw boobu nag. lan mooy ngeen dem euh, ba à un certain moment projet bi concrétisation bi kay concrétisation bi première phase bi moom moo nekkoon ñu jël ay locaux. yu fi nekk mhm. ñu def ci ay modification dugal fa xale yi mettre leen en situation mhm. kon ne collaborer ak l'école de travailleurs sociaux de Nice pour ñu kon ne tàggat ñu fi nekk pour améliorer compétence ñi am ba pare formaliser compétence ñi am mhm. donc ci loolu lañ doon yëngu am na matériel tamit di ñuy war a jënd ak yeneen ak yeneen yooyu yëpp dafa nekk ci projet bi dana fu mu ne nii direction bi moom ba léegi mënu la wax exactement problème bi fu mu féetoo ñun lu ñu xam ci mbir mi moom mooy projet bi suspendre nañ ko parce que li ñu jox dépensé wuñ ko dañu am problème décaissement loolu la ñu bind ci yëf yi waaw léegi euh, lu jotoon a dégg mooy ay problème code de marché publique ak yooyu yooyu moom vraiment ñun ay médecin lañu euh, mais dofuñu mm-hmm. xam nañ ne mënoo toog at ak euh, genn wàll un projet aussi dynamique mënoo jënd matériel bu ko wekk ci ay code de marché public. Mhm. donc fu muy daal projet bi euh, bailleur bi ñu doon jàppale moom tegg na tànkam. pour mhm. problème de décaissement. Mhm. ministère nag la ñuy xaar mu yàggal liggéey bu mën a liggéey pour que ñun ñu xool nan la ñuy continuer. Euh, ak unité médico-socio-éducative spécialisée bi waaw. Mm. justement par rapport ak euh, seen collaboration ak ministère bi ndax euh, jàppaloo ne eh, buñ ci ñoom impliqué dina xaw a prendre beaucoup plus de temps parce que déjà xam naa ne amoon ngeen ci yaakaar. non ministère xam nga ministère mooy tutelle bi ñun fa lañ bokk. Mm-hmm. ñun ay agent santé fonction publique lañu. Mm-hmm. maintenant euh, ñun au niveau on est au niveau opérationnel. waaw ñun terrain ay homme de terrain lañu ay fajkat lañu. Mhm. lu ñu mun def mooy rencontre fidèlement euh, situation yi bu ñu laajee. Mhm. bu ñu laaju lépp li nga xam ne yor nañ comme information dañ koy tënk bind ko dem déposer ko léegi euh, procédure yi. à ce niveau ñun vraiment mënuñ ci am une visibilité mënuñ ci am une maîtrise ñun suñu biir nag ñun li ñu war a def ñun nañ ko def waaw ñoom nag ils sont libres ñu toog di sooxaaleeg yëf yi mm-hmm. ñun duñ ci dugg mm-hmm. ñun lu ñu war a def ñun au niveau opérationnel ñun ñu ngi ciy def ñu ngi ciy yëngu te mënuñ tamit dugg trop ci euh, yenn yenn affaire daal li nga xam ne vraiment concerné wuñu ñun lu ñu concerné moom mooy envoyé des rapport bu ñu woowee ñu wuyu bu ñu laajee ñu wax ci parce que ñun projet bi nga xam ni sax man en un moment j'en ai été le coordonnateur mm-hmm. benn instant lañ ma tegg ci coordination bi ne ma yow da ngay coordonner purement le domaine médical directeur mooy coordonner projet bi rendre kon fidèlement li ma coordonné. Mhm. ak liñ ci jot a def. Mhm. léegi li nga xam ne moo ci des euh, ñi ci war a rendre dañ ci rendre compte maintenant ministère ay suñuy autorité lañu ñu ngi leen di déglu teewul nag au niveau opérationnel ñun bépp action bu ñu war def nañ ko def bépp communication bu ñu war a def it nañ ko def. Mm-hmm. waaw mm-hmm. Euh, dellu si waat ci li nga xamante ne moom moo soxal euh, centre Talibou Dabo muy regrouper ay ñoo xamante ne dañuy am ay ay jàngoro wala ay laago je suppose di ngeen soxla neurologue kinésithérapeute chirurgien dentiste lépp lu jëm ci wàllum paj yi boo ñu doon euh, waxal dispositif bi nekk fii ndax jàpp nga ne e mat nañu ba mën a def le travail comme il se doit. des na des na bu baax. Mhm. parce que boo xoolee e actuellement Sénégal li ñuy woowee spécialité médecine physique et réhabilitation fonctionnelle daanaka ñi ko am comme diplôme te di ci liggéey. Mhm. nekk en âge de travail bëriwuñu. Mhm. bëriwuñu te loolu soxla nañ ko fii projet bi ma lay wax ni dañ ci jàppoon kenn kom xam dañ ko bëggoon mu yóbbu yóbbu mu dem bitim réew dem des spécialités en médecine physique et de réadaptation fonctionnelle mm-hmm. professeur Pouy yàlla na suuf sedd ko bu mu sàncee sànn moom orthopédiste la mais dafa amoon vision mu jël docteur Belisi yóbbu ko Canada mu dem jàng rééducation ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen donc actuellement ya y une rupture tout simplement euh, de la continuité de l'offre de service mhm. en matière de médecine physique et de réadaptation fonctionnelle man ab neurologue la je suis un hospitalier bien que euh, am naa ci ay compétences mais soxla nañu lu mel ni spécialité boobu mhm. euh, am na yeneen spécialité yoo xamante ne nag euh, c'est des spécialités hospitalières yoo xamante ne on est obligé d'avoir des ponts avec les structures hospitalières loolu bokk na vraiment li nga xam ne manque na centre bi te on en appelle euh, à la tutelle pour ñu régler problème yi am am na nag ay jéego yi nga xam ne ñu ngi koy def actuellement am na professeur Ngour mi ngi liggéey ci wall boobu pour que ñu mën a former ay spécialistes en médecine physique et de réadaptation fonctionnelle wàllum kiné yi duñ ci dellu si vraiment y a très peu mm-hmm. actuellement peut-être ministère ñu ngi jéem a format au niveau de l'NSS boo demee service de triage orthopédique également même statut lu moo fa nekk on a quasiment pas de spécialiste en appareillage orthopédique mm-hmm. pour nga jàng il faut nga dem Togo wala nga dem dans les pays d' Afrique du Nord sinon nga dem bitim réew ci projet bi amoon na kenn koo xamante ne jëloon nañ ko pour yóbbu ko Togo bu ñu am inscription am Euh, mais soox sooxaale moo tax ba finalement nit ki muñul dem. Mhm. waaw. Euh, tey ni le mal est beaucoup plus profond au centre euh, Talibou alors. oui le mal est très profond il faut que nit ñi ñëw toog autour d'une table xam exactement en profondeur li nga xam ne moom moo fi manqué. que ñu bàyyi nekk bañ a nekk en superficie kese foo ne ay contrat yu jeex la jeex yooyu lu am la mais yooyu noonu bu ñu amoon une meilleure structuration une meilleure organisation dans les hôpitaux partout ya des prestations il y a des prestataires mais du demee nii mais ya y a un mal beaucoup plus profond par rapport déjà aux carences en ressources humaines loolu lu am la te lu ñuy firnde la euh, offre de service bi dina sooxaale donte nag nit ñi ñu ngi def lu ñu mën mm-hmm. nit ñaa ngi def lu ñu mën vraiment boo defee une enquête par rapport au Euh, aux, aux, patients qui fréquentent le centre d'Abdab, surtout les extrêmes, euh, euh, vraiment, les gens sont satisfaits. waaw les gens sont quand même satisfaits dans l'ensemble mm-hmm. ñi ñëw di faju fii ñu ngi ci gis seen bopp mm-hmm. waaw mais war nañ mun améliorer offre de service waaw euh, justement centre Talibou Dabo rappelé nga ko deux fi jot xew semaine yi aussi ngeen nekk un mouvement donte yéen a ngi chaque jour di porter le brassard rouge pour dénoncer certainement la gestion de cette structure hospitalière tey amaloon gën tamit moins benn point de presse. Mhm. amaanaam loolu lépp c'est pour dire non à cette gestion à l'intérieur euh, de l'hôpital euh, de de du centre. du centre Talibou Dabo autant pour moi. tey bu weesoo loolu lépp euh, ngeen tajeek benn silence boo xamante ne quoi qu'on puisse dire c'est un silence parce que certainement le directeur de l'hôpital boobu ba léegi même bu réagir réagirul au nom euh, à titre officiel tey ban beneen plan vraiment ngeen fas yéene amal autorité yi vraiment mun leen dégg ba ñu ne. il faut ñun fu mu ne nii fu ne nii euh, déjà ñu ngi def point de presse c'est la communication, ça fait partie mm -hmm. des stratégies de lutte déjà euh, sans que dama jeexalul par rapport ak manquement yi boo xoolee fii mm-hmm. plateau technique bi am na loo xamante ne jéem nañ ko fi def am nañ fi électroencéphalogramme am nañ fi électroneuronomyogramme mais ki war a def yooyu buñ ko téyee ci bunt bi mm-hmm. nan lañ koy defee demande nañ fi une radiographie numérique ay at ci ginnaaw yàlla def euh, daaw le fournisseur andi radiographie ni rek c'est une première ba mu koy andi huissier la àndaaleel mm-hmm. pour mu constater que ne teg na fi machine bi machine bi plombé nañ fi benn salle waaye ba léegi machine tàkkul kenn mënul sax dajji Euh, carton yi. boobu ba léegi. boobu mën na at fu mu ne nii bu ñu interpeller directeur mën nañu est ce que wóor nañu ci biir carton yi ndax machine bi moo ci nekk donc il faut ñu interpeller direction établi euh, infrastructure équipement ministère. Mhm. pour mu ñëw trancher cette question parce que ñun mu ñu nekk ay agent de santé am une radiographie numérique former sax benn agent au niveau de l'hôpital général Idrissa Pouye pour que bu yëf yi ñëwee. Euh, mu ñëw di ci liggéey boole si ñi fa nekk ñëw duñu jàppale parce que ñun duñu ay concurrent on est complémentaire mm-hmm. ñun ñoom boobu ba léegi dañuy dem sax kooku lu mu jàng xam naa yaakaar naa fàtte na ko euh, silence bi am au niveau de la direction bettuñu parce que koo xamante ne yaa ngeen waxtaan bu demee ba épuisé moom dafa épuisé loolu laa jàpp euh, toutes les voies de recours parce que ku dem ba andi fi police. Mm-hmm. di def un management par la terreur par la force vraiment difficilement lay ngay mën a retourner ta veste pour nga ñëw di discuter ak euh, agent yi dina xaw a euh, jafe dina xaw a difficile mm-hmm. euh, ñun lan la ñuy xaar autorité ñëw régler problème Talibou Dabo sinon lu ñu waxoon moo fi nekk y aura gel des des des activités tout simplement. Euh, euh, mooy. mooy bu ñu xëyee urgence dinañ ko gérer parce que fii du hôpital waaye day am ay urgence ah. am na élèves yu fi ñëw di crise da gis malade boo xam te day jóge ba waalo yegg si fii nii tey damay jóge point de presse ñëw xool benn maire. parce que fu mu jógee sore na il faut mhm. ma xool ko mhm. dinañ régler toutes les problématiques yi nga xam ne c'est des problématiques sensibles de santé mais mënuñu xëy en tant que médecin technicien labo bi ñu ne ko doo dugg ba bari ñu continuer di xëy comme si de rien mm-hmm. te kook seen l'ensemble de l'équipe médicale mm-hmm. c'est pas le médecin chef bépp médecin bi ñu ñëw fii pour ref ay vacation ak benn médecin bu ñu fi affecté au titre la fonction publique ñëpp banque seen loxo mm-hmm. waaw boo demee tamit dans le service d'appareillage c'est la même chose Euh, boo demee au niveau de kiné ñoom ils ont des contrats de prestation assez particuliers avec la direction ñoom ils vont essayer de prendre en charge les malades parce que malade bi nga xam ne dafa nar a def ay séance de kiné mais dafa am une certaine cadence boo xamante ni il foog mu respecter ko mm-hmm. mënul def tey toogaat ñaari semaine doog a defaat te mu fay xaalisam mm-hmm. donc ñoom ñi ngi def seen liggéey mm-hmm. parce que am nañ ay contrat moraux ak Euh, déjà patients yi. Mm-hmm. am nañ tamit ay contrat ak euh, établissement bi mais xam naa bu ñu kon nee nii malade lañ dul gisati. Mm-hmm. parce que malade ñu ñoo leen di yebal foofu. Mm-hmm. waaw ah, lu mel ni kon euh, da ngeen décider vraiment ngir peut-être pas tordre le bras mais ngeen mën am le retour par rapport ak jafe-jafe yi ngeen di dund. non ñun waxuma la retour jafe-jafe yi ñuy dund parce que. jafe-jafe yi mënuñ ko régler yëpp ci benn fan mm-hmm. parce que ñun tamit ay ay ay ay ay agent ministère la ñu la fonction publique lépp mënul sottee ndoo mais dafa am ay problème yoo xamante ne euh, munuñ ci réculer mm-hmm. mooy euh, comité de gestion bi il faut mu taxaw dafa yàgg il faut tamit euh, ñi nga xam ne dañoo nekk ci ay contrat yu précaire Euh, ñu war leen a faagagal nii à la veille la tabaski bëgg leen a fexel teg fi ay police il faut mu dagg beneen mbir mooy police na boucler enquête balu fetal bi. Mm-hmm. te bu ñu tegati seen tànk ci Talibou Dabo pour des raisons sordides. ñëw taxaw fii teg ay affaires non non on va plus l'accepter mm-hmm. waaw te loolu taxaw nañ ci te nañ yéegal information yi jusqu'au plus haut niveau mm-hmm. waaw nañ bàyyi di andi takk der ci ay problématiques yoo xamante ne c'est des problème internes mm-hmm. juste parce que directeur bi dafa am ay relations particulières ak commissaire bi mm-hmm. voilà d'accord euh, sànq wax nga ko hôpital ou autant pour moi centre Talibou Dabo bu Grand Yoff dafa war nekk benn centre de référence xam naa booy wax loolu c'est par rapport ak euh, on a le personnel adéquat qu'il faut même plateau médical bi bu fekkente ne souvent c'est un peu défectueux mais bon non malon nit yi ñu ngi fiy ñëw faju te wax nga ko ñu ngi ciy gis sa bopp lan moo tax euh, rek ñun ñuy former les parce que boo jëlee médecine bëri na ñoo xamante ne ci sous région bi ñëw jàng fii après dem exercer ci seen pays respectif yi et pourquoi euh, ñuy noter euh, contraste boobu non non c'est-à-dire que loolu c'est au niveau pratiquement organisationnel mm-hmm. parce que waxuma question sous région on a beaucoup de camarades de promotion en médecine yoo xamante ne ñi ngi gën a gis seen bopp euh, dans les pays d'Afrique du Nord mm-hmm. mais loolu c'est des problématiques de développement d'ordre général mm-hmm. parce que Sénégal fo mu toll la yooyu c'est pas des problèmes spécifiques man li ma tax a jóg mooy Talibou Dabo madame man ay jàng fii dem Tunis ubbi clinique man loolu tax ma jog wala mhm. luñ ñëw fii dema fii télé mu daaba mooñ tax a jóg. ak mhm. problématique de handicap yi. Mhm. et que fii nii actuellement euh, am na luñ fi jot a def. am na lu ñu mun améliorer am na fu ñu bëgg a yegg. loolu kese la. Euh, nga nekk euh, neurologue ah bu nekk beneen pàcc mais dañuy tëjee foofu rek xam naa ni le temps ne nous permettra pas ñu dugg ci lépp ci neurologie particulièrement ci sa spécialité mais docteur Diouf dañuy ñëw ci lépp lu jëm ci euh, gestion wu handicap fii dañu xaw a di xaw a sous-estimer wala stigmatiser un tout petit ñenn ñi nga xamante ne ñoom ñoo amee yenn laago yi tey boo doon joxe benn message l'endroit de la société à l'endroit des parents par rapport ak euh, ñi am yenn feebar yi lan nga leen di wax. bon d'abord euh, am na benn remarque bu am euh, man je suis pas trop d'accord boo ne stigmatisation bu ñu demee ñaar fukk at ci ginnaaw boobu ay gone lañu. Ah. am yenn doom boo ko amoon da leen di nëbb. tey jii nii nit yi en tout cas man impression bi ma am. Euh, mooy nit ñi dañoo bugg ñu jël en charge seen doom yi. Mm-hmm. quel que soit leen mun ci dal fii kenn nëbbatu fi doomam parce que xam nañ ne xale moom handicap mun na dal ci ku ne parce que moon bi tamit dafay évoluer maintenant ñun ñoo war a nekk à jour par rapport à cette demande la là. Euh, démb dama nekk hôpital di consulter benn malade boo xamante ne xamee naa ko ma ne ko mais yow ñëwoon nga teel daa pour doom bi jàng mu ma waaw. mu ne ma waa ñëwoon naa ma ne ko mais su doom bi mën na jàng parce que gis naa ko xam naa ne xel bi baax na mu ne ma noo ñëw naa mais euh, nu ma gisee ñu toppatoowee ko doyuma moo tax ma ma ne ko dëwan incha allah nga del siwaat donc parents yi si boppam ñoom dañuy am une demande pressante mm-hmm. mais dañoo bëgg ni ñu jël en charge seen doom yi euh, vraiment euh, de manière adéquate ñoom loolu la ñu soxla ba pare képp ku ne sa lu mu mënti am am na droit ñu socialiser ko mooy am na droit nekk fenn foo xamante ne au moins on peut avoir de l'espoir donc man euh, sur ce fait pour man euh, état euh, sénégalais euh, moo war a ba nekk à jour ñu ngi ne Téléblav boo demee ci région yi Téléblav amu fa on a quatorze régions donc quatorze régions mm-hmm. mooy quatorze zone yoo xamante ne dañuy am susceptibilité am ay xale wala ay mag yu nekk en situation de handicap te pour ñu am fu ñu fajoo wala fu ñu leen jëlee en charge sur le plan de l'éducation de la socialisation day xaw a am jafe-jafe mm-hmm. donc ñu benn tarib daab mais ay tarib daab lañ soxla ñun vision boobu lañ am donc balaa ñoo mun am ay tarib daab il faut fii nii ñu régler ko donc après y aura peut-être projet d'extension pour qu'il y ait des de référence dans les quatorze régions mm-hmm. loolu daal mooy suñu xalaat bu mujj. Mm-hmm. d'accord euh, docteur euh, Aloyse Diouf waxtaan wi am na solo mais mu mel ni on un tout petit peu rattrapé par le temps tey sa kàddu gu mujj ci suñu émission bi di SOS santé. waaw ñu leen di gërëm euh, di gërëm te spectateurs yi di di leen nuyu di di baalu ak ñi nga xam ne peut-être am nañ ay. Mm, gàllankoor yoo xam ne eh, lii xew fii nii en tout cas sooxe na seen mbirum faj euh, di ñaan autorité yi nag euh, ñu jël au sérieux ces problèmes parce que problème yi du problème mu personnel kese mm-hmm. c'est des problèmes beaucoup plus profond yoo xamante ne dafa laaj une réflexion ak ñi nga xam ne ñoo gën a xam yëf lan la ñu déglu leen ba ñu dégloo benn nopp pour que en tout cas nit ñi mun am une solution heureuse loolu la ñuy ñaan jërë ngeen jëf. Euh, jërëjëf à également sant ko gërëm ko moom euh, docteur Aloyse Diouf euh, ma fàttali ne moom médecin chef la fii ci centre Talibou Dabo bu Grand Yoff fàttali ne docteur Aloyse Diouf moo nekkoon suñu invité si suñu émission bi di SOS santé SOS santé nag Fatou Baba Fall moo ci micro bi Bachir Cissé ci xarala bi jërë ngeen def ci déglu bi beneen émission beneen vendredi ak beneen invité